plateau asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Equivox TV yi comme ni ngeen ko tàmmee di amee rek tey di lundi 2 août 2021 ñu nuyuti leen ziarati leen si seen émission bi nga xam ne moom mooy am alterné bu jot maanaam lundi bu nekk fii nga xam ne nii moo di ci Equivox TV ñu di ko wax Arena Hebdo Arena Hebdo nag bu ngeen ko déggee lépp luy làmb dañ ko ciy waxtaanee di ci invité di ci am ay gan di leen invité tey nag sunu ay gan comme ni leen ko annoncé depuis ca bëccëg wala ni ñu leen ko annoncé depuis ca bëccëg maanaam dañoo ñëw tey ci li nga xam ne nii ñoom ñooy mbëri simple yi donte dañ dafa frappe la ñuy def mais da mbëri simple la leen gars yi di wooyee ñu am ci tey ñaar ñoo xam ne nii kenn ki teew na kenn ki mu ngi ci yoon bi di ñëw xam naa taw bi moo ko téye Serigne Ndiaye numéro 2 lañ am tey ak ibu Ndiaye Obali muy ñaar ñoo xam ne nii ah vraiment li simple bi ñu ngi ciy marqué seen empreinte yaa ngi dégg tey nag ah ñu ne nañ leen woo parce que ñoom itam ci lañ bokk te ñu ngi wane seen bopp am na fu ñu toll li may def mooy bàyyi Serigne Ndiaye numéro de moom mun na yoo en attendant ñu dugg ci waxtaan wi xaarale ki nga xam ne ni moom mooy Ibou Ndiaye Obali wala Ibou Ndiaye bu Diofior mbër maa ngi lay ziar. Mbacke maa ngi lay fay bu baax di la ziar. Mhm. xam yëpp. Mhm. waa Sénégal. Mhm. di nuyu suma écrit. particulièrement papa Abbas Ndoye Père Tafa xam nga sumay entraîneur père Seck père Guèye Camara père Ibrahima mhm. Mbaye xam nga père Socé mhm. ak suñu nouveau entraîneur yi nga xam ne mooy père Kati gis naa yaram bi oyof trop mhm. di nuyu suma mbokk mbëri nekk équipe Fass yëpp xam nga di nuyu suma turandoo père Serigne Ndiaye di nuyu suma coach yi may entraîné xam ne ni mooy coach Jo am fayam ki ma si coach Max am fayam xam nga di nuyu suma gars yi bu baax ku mel ni coach Alous Fabrice Alous di ko nuyu baax di ko di ko ziar bu baax a baax di nuyu waa Médina gi ma juddoo Yorof màggee fa ak suma waa dëkk waa Ndiafat Escale Ndiafat Socé Ndiafat Bérut ak Ndiafat Njaba Séeri ak Sonkees village ko wër yëpp. Mhm. xam nga di nuyu sama mbokk bool bool waa Lambaay waa Mbootal. Mhm. xam nga di nuyu ñëpp di nuyu waa mag petit Mor Lamine Obala. Mhm. xam nga Maam Samba. xam nga Bada Bada Lees. Ousseynou Zal. xam nga maa ngi ñëpp di ziar ñëpp. di ziar ñëpp. am na solo macha allah di nuyu ñëpp di ziar ñëpp mais encore une fois di balu ñëpp ak si julli tabaski gi ñu génne. Euh, di ñaanal yàlla euh, Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm coronavirus bi yàlla na fi jóge ak jàmm ba ñu mën a delluwaat ci li nga xam ne nii moom moo di suñu ay activité mbër léegi fi may ñëw ak yow fenn lay doon maanaam mooy saison bi nga xam ne nii commencé woon nañ ko mu neexoon lool maanaam ñu dem a dem ba dernier moment coronavirus ba ñëw dagg ko la tax mooy ak coronavirus ba moo dem ba yokku exagéré ba nga xam ne ah malade ya chaque jour que jëfe ñu ne cas yi mu ngi yokku yéen ñi nga xam ne ay mbër yi làmb ngeen yow defe naa mois de août bi waroon nga si bëre yàgg soo ko sim jàppoon nañ date ba pare ah voilà loolu bi nga ko yëgee en tant que xale boo xam ne ci làmb nga ne yaakaar ci di ci yëngutu ñu xëy xëy ne la làmb ja dañ koy aj ba ca kanam lan nga njëkk a yëg ban réaction la Serigne Ndiaye de njëkk a amee waaw man balaa dara damay suñu sant yàlla bu baax mhm. waaw parce que avant tout santé waaw yoo xam ne boo amoon amoo dara doo mën a bëri. loolu dëgg la doo doo ko sattal bay bëri. Mhm. amoo donc affaire situation yi métti na trop. Mhm. xam nga suñu ñëpp. Mhm. vraiment mais ñun suñu cas dafa bokkul ak kaaw corona bi. waaw parce que ñun te yaakaar naa balaa état bi tëj lépp fekk suñu promoteur bi am na moo tëgg combat bi. toog mu nekk loolu tamit nag mu ci lancer wàll benn message. pour sumay supporter ak bépp promoteur boo xam te ne bëgg nga suma combat. man Serigne Ndiaye numéro 2 sumay staff. amatuñu Habib Lac benn benn benn contrat benn contrat liyeetuñu nekk nii. lu tax nga wax loolu. waaw mais ci lépp parce que bu fekkee bu ma dox combat la euh, février la sama combat soog si mu taxaw. février ban deux mille vingt. waaw. wala février bii passé. dama bëri Libidor mois le vingt deux décembre. waaw février sama combat soog si mu taxaw ñu war ko bëri le vingt et un juin. Hmm. dañ ko waroon bëri. waaw corona bi ñëw. ñëpp d' accord nous sommes tous compréhensifs. waaw corona bu ñëwee. waaw au moins yow promoteur yaa ngi tëdd nalaw bu gars yi demee njëkkante ay date mhm. dama nga njëkkante ay date xam ne ay xale nga engagé ay xale yu nekk ci nga engagé mhm. ñu bëri seet leneen mhm. nga ñëw ne jàpp nga date le 5 juin diggante Nandi Fall ak kii Dame Sène Dame Sène waaw le juin man mu ko tardivement tardivement ñu ñu accepté ko parce que bëgg nañu bëri libéré waa promoteur bi ok mu dem ba ci biir xëy nañu soo ko sib nee na pare bu bëri la 5 juin te jox ma un franc man ma préparé sama di pare sama combat. ok yaa mhm. la 5 juin boobu jàll. Mhm. encore ñuy waaj. Mhm. mu moo message message ma. Moustapha Gueye message ma ne ma le 17 ngay bëre. ma jógee fekk maa ngi Gambie ma jógee Gambie. waaw nekk si yoon di ñibbisi. moom Habib Lekra mu envoyé ma vocal. xamal ma ne ma carrément que sa adversaire su ko sim nee na dafay jege tabaski bi trop mënul bëri le 17 juillet léegi dina ko pousse ba le 4 août. ok mais le 4 ma toog ba sa mbokk journaliste woo ma ne ma la 4 août ngay bëri. Mhm. ma woo père ne wal Habib la ka ñuy bëri. Mhm. mu père woo ko woo jotu ko di ko woo jotu ko. Mhm. dafa loon ne ay nit bu ñu bokkee liggéey. dafa loon ne dafa war di daw. waaw muy respect. bu jiitu mooy respect. parce que ay nit fekkee da ngeen bokk liggéey. làmb àq war ci am. làmb dafa metti waaw mais moom mais moom fayoon cent millions. li ma ciy def wala li sama mbokk ci def da koy ëpp fuuf. loolu mhm. nga nga tëgg ay xale yoo nekk si yoon lañ nekk. Mhm. war a bëri toll si moment bëri. Mhm. ngay nekk kale kale de gauche à droite man dama am staff. nekk si équipe bu mag laa nekk. munoo toog ba ba préparé sama combat le 4 août parce que combat des même même pas même ma génn def sorti boo xam ne ni teewoo fenn si yoon. ne non woo naa Sococim léegi su ma jógee bi dinaa woo kon mais yow li fi nga wala li nga expliqué su ma ko déggee mooy ça veut dire que yow kon amee la too Habib Lecran. combat amee la tuma Lecran benn combat. promoteur bu bëgg sama combat ak ku mu si àdduna ñëwul nga waxal ak sa sama ay sa ngir paas ma dem bëri ji Habib Lecran bu soxlaa sama combat daf may fayaat beneen avance la may joxaat lay wax Tapha Gueye Tapha Gueye jox beneen avance ma préparé. joxoon na la avance. joxoon na ma avance suñu avance njëkk yi juróomi dërëm manqué lu ma ko avance global la ma jox. Ah, léegi nga bëgg a taxaw ne amalatu ko combat. waaw si si da nga koo teg ci kayit. dama ko teg ci ay wala yoona la ko may li ngay wax nii. yoon may na ma ko dama ko teg ci kayit parce que fekkee da nga engagé nit. waaw sa fa sa fa digg da nga engagé nit rek yow da ngay doxalee nu ma neexee promoteur bi. non mais est ce que du tamit promoteur bi. moom mi jël xaalisam jox la est ce que am na yéene jox la xaalisam. bàyyi ko fa muy nelaw est ce que du ay empêchement ay problème ma taxoon ba tax mu aj combat bi. parce que corona bi duggoon na dèjà. bi ñu ko war waree mois bëri mois de juin. waaw ok bu combat corona moo ñëwoon. ok même même boo ko ajee. waaw même boo ko ajee. nga jàppal ma trois fois date waaw yokkul ma un franc ma yom préparé sama combat. Mhm. te ku ne xam ne boobu nekk si yoon ay combat mhm. a métti si man trop. man tamit mënu ma di xaar ay promoteur soxla sama combat. Mhm. mais non foog ma libéré oxygène ba pare mun xaar leneen. temps boobu du ma ko xaar te taral bu méttee métti métti métti. Habib laa tardé. daf ma ba pare. ñaar ni muy communiquer teg ko yoon. ba mu soxlaa sama combat. dañoo jaar si ay pot yu leer. donc sama combat lu mun di xew nekk ci ay télé. ay média laa ko war a mun jege war na mun woo samay kilifa. xamal ne nii ak nii ak nii la. respect dafa baax ci lépp. maanaam daal doxalin bi mu doxal nga. doxalin doxalin bi yow si jëm boobu journaliste nga xamal li làmb di doxee. muy doxee mooy xëy na bu fekkente ne corona moom tax nañu aj combat yu baree baree baree bare su corona jeexee tamit ku ci am nga droit dem jàppi dat mais jàpp date yi tamit dafa am nu muy doxee nekkul ne da ngay ñëw yow jël dat bi la neex ok ok am nga seen tamit ay règle la ay kayit la lu ñu fa teg la ku ne dafa am lu ñu lay lu ñu lay jox hmm. ci ni ko yoon santaane pour man waaw tey man la 22 juin laa waroon bëri. waaw Gris Gris doo kañ la 4 juillet daaw. waaw Gris doo man instant na ma bëree gu ma. Ah, ba Gris doo dina ut licence date la ma wax ut date. ndax utul date. est-ce que utul date ñàkk te du am date tamit na. attends affaire bi na nga teg si cadre liggéey moo dafa jox avance kese li may financé sama combat loolu ko nga jàpp lu mat 4 fois date te lépp du ay coobere moom dana man sa adversaire nee na pareegul nii ak nii sama adversaire loolu du wax. waaw loolu adversaire moom bu fekkente ne signé na contrat. waaw xam nga waaw ñaar. Hmm. lu munti xew na woo sama staff xamal ne nii ak nii mooy xew ñu communiquer si mu jàll état boobu nekk ci leneen parce que bu mu soxlaa sama combat xam na fu mu jaar pour tëgg sama combat. mais est que joxaat la avance bi ne wóor na ci promoteur. pourquoi pas. yaa ngi lekk avance su jàmm. amul dara lu ñu liyee fi mu nekk nii li ma def si combat bi. boo ko doon diviser par dix mille parties fayu ma ko moom mais yow la nga fay nag moom loolu yow lay engagé waaw ba tey waaw mais bon kon kay ne yoretuma ko combat moom moom moom moo gën a xam ne ma yoretuma ko combat waxante est a waxal hmm. waaw te man ñoo leen amee la lekk naa moom bu déggoo dina xam baax li ma ko moom Mhm. bu fekkee nii lay tëggee làmb sama mbokku mbëri laay waxal nañ jël seen matuwaay bu baax parce que làmb dafa metti mënoo mënoo jël benn avance boo xam ne sax da nga ko war a libéré bu yàgg nga topp ci ay at di entraîné saa bu ñu jàppee dara mu fomp te lépp lu ñu fomp mooy sa adversaire nee na pareegul léegi-léegi ñetti combat ay promoteur dañuy bëgg tëgg mais bu ñu xaatee ne yaa ngi avance jàmbur du la mën a tëgg waaw ah, loolu day am na mais affaire dañ teg si yoon làmb am respect nga joxante ku ne joxante cër ñu liggéey avance te yàlla tax am na ne àq la baaxul parce que libidoor nga mu jëbëreel jéy seen a ko tëggoon. merci mention spéciale Père Dieng ak Laxa waaw waaw parce que parce que làmb bu boo tëggee làmb. laat da ko ñàkk caaxaan la jéy waxi mhm. mhm. si publicité. Mhm. mbëri def signature contrat. làmb gi dem yoon man mercredi bi laa waroon bëri amul kenn ko xam Sénégal la Serigne Ndiaye soo ko si mercredi la ci làmb ñu toll noonu c'est pas normal du tout nga xoolaat liggéeyam bu baax. mu xoolaat liggéeyam mm. am na solo Habib ñu koy nuyu di ko ziar xam ne moom itam yàgg naa jàppale lamb ci côté sponsoring ñëw ba benn moment mu dagg licence pour nekk promoteur defe naa daan defal daam seen ku ne gis na ne moo ko tëggoon jàppoon na tamit datant pour war a tëgg combat bi mercredi bii passé la ñu waroon bëre normalement yaakaar naa ne far yàlla dogal corona bi ñëw non corona taxul de bu baali lépp corona taxul de même bu corona bi amu ko même bu corona amoon man nax moom bëre da nga naroon bañ moom parce moom moo ne dafa aj jamono ab wax moom moo la waxal moo wax loolu moom ITV ITV la ko wax nga baal ma ITV la ko wax ne woo na Sococim bu jigee fi day woo sama ay mbokk muy Tafa Gueye ITV kay du am baalu ndax ITV kër gu mag la eh. ITV kay boo ko tuddee fi dañ ci fier eh. ndax sunu mag la sunu xarit la sunu royukaay la san commande kon mhm. ñoom Balla Gaye ak ñoom bëri mën di moo bëree kon moom daal décision bi mu jëloon décision bi mu jëloon mooy làmb ji du ko bëreel du ko tëgg la 4 août doxe at ba jëme jamono kon la 4 août bi ñu waxoon daal naroo continuer bëre yow kon dégg nga bàyyi ma ngi lay dégg kay yaa may doon comprendre waaw comprendre moo tax ma la xamal léegi amatuma ko benn waaw loolu day moom day naqaree lijjanti kon nag Habib hmm. ah lamb itam moom am na aw yoon parce que tamit mbër mi bon bu fekkee da nga jox avance tamit yaakaar naa ne bu ngeen amee date ba fixé seen dat defe naa ne li war a mën a tax ñu ne combat bi amatul cas de force majeure lañ koy tuddee loolu mooy loo xam ne adversaire bi blessé na wala loo xam ne la daal lu doy waar loo xam ne nii waaye adversaire bi nee na pare gumba kese kese kese moom defe naa itam ah loolu moom defe naa du wax joo xam ne nii moom aj na am ngooñ parce que tamit yow adversaire bi gis adversaire ñu jox xaalis nga nangu bëree ak moom defe naa ne saa yu nekk bu ñu la contacter bu fekkee dara jotu la war nga mën a pare pour bëree mais nag bon xëy na mag mu ne moo la gën a xam màtti lalam léegi Serigne Ndiaye numéro 2 yaa ngi ne yaa ngi da nga ne ci yoon macha allah comme ni nga ko waxee euh, lutte avec frappe bi su ma dikkaatee laaj la tey ñaata combat nga ci defagu actuellement. sept ou six combats. sept ou six ok yaa ngi ci ñaata victoire ak ñaata défaite. maa ngi sept xamoo six victoire benn défaite. kan moo la daan. Franc. no du Franc kese. Mm. Zambala kay daan na la. Mm. ah kay loolu sama kanam lay ba am na ci yow ndam yow tamit nag lu tax nga bëgg a bañ sa sa sa sa défaite boobu yow itam nag. wala yow fa nga teg ne. Zambala daana Serigne Ndiaye du fa nga ko teg. mais yow dafa dugal recours ñu jox ko ndamam. waaw lan mooy recours yow Zambala ñu bëre ma tëgg ko mu rëy bu amul fenn ci àdduna moo li nga wax fii léegi ne nga ci kayit nga ko teg. waaw déglu muskala bu baax. ah maa ngi tubaab xam na ne su ma duggaatoon recours man ne du am dara fu mu toll damay dégg ah, laa daan. est dama ko jox asaka sax ah waaw kon kay dangay ngay nangul ko ko ah, rek sportivement mais dugal na recours am am ndamam doo ko bàyyeeg ndamam a ah, félicité ko amul daay mbër amoo dara <laughs> Zambala nag daa mën a am njool la de njool mën a bëri la de <laughs> keroog maa ngi Iba Mar toog seen combat ba <laughs> ma ci nuyu waa Pikine yëpp di nuyu waa Mbaaw tamit di nuyu ki nga xam ne nii moom mooy papaam bi nekk Italie maa ngi koy bëgg bu baax a baax Zambala baax la coach waaw su xës Zambala tamit nekk xale boo xam ne macha allah ku yaru la nag. non Zamb gaynde la macha allah. waaw dafa yaru moom moom. loolu moom defe naa ne. ñëpp waxal nañ ko ko mm. il waaw nit ku discipliné la. yow tamit macha allah. Mm. loolu moo lay wan ne kon Serigne Ndiaye 2 boo ne mu ngi boo waxee ne yaa ngi ci yoon na ñi dañ koy mën a gëm parce tamit li nga wax nii ci xale boo xam ne nii defe naa bi nga duggee ci làmb ban année laate sax yàggul noonu. yàggul daal te Fass nga commencé bëre. te Fass Fass maa ca nga njëkk a bëree. ca laa njëkk dugg Fass man. ca nga njëkk dugg Fass. waaw ngir Modou bu njëkk ba. bu njëkk ba ci laa ñëw ah. Fass. ba ko Modou di gagné par ay avertissement. waaw waaw. ci nga njëkk a dugg. njëkk a dugg équipe Fass. pour entraîner. pour entraînement. ok mais est-ce que njëkkoo bëree Yoff. non sama premier combat maa ngi ko bëree Stade Ngor. ngor waa ngor exactement ngor nga jëkk a bëree ah. voilà loolu maa ngi sama rappel très bien mais loolu tamit loolu écurie laa ko bëree waaw bien sûr écurie la mm-hmm. loolu kay maa ngi koy fàttaliku euh, kon macha gis nga fi mu jaar mais tamit damay am leneen lu may lay laajaat tey ci par rapport écurie Fass parce que damay seet souvent su ma la wooyee mm-hmm. ne la nangam la nga may wax mooy xaaral ma woo père Tafa Gueye wala père Abbas mm-hmm. loolu lan la kilifteef la dangaa loxo wala dangaa nekkul koo xam ne yaa jëlal sa bopp say décision bopp parce que même pour nga ñëw fii sax tey bi ma la wooyee jékki woo jékki ne ma waaw da ne ma xaaral ba ma woo père ba pare ma koy nuyu père Tafa. Ah, moom Abbas ah, président waaw ah, mais boo nekkee si kër da nga am hmm. yàlla kilifa te macha allah teg na si bonne condition yoo xamante nii. Hmm. du yoon sax may génn sama kër dina fen te tàggu ma boo nekkee ndaw di yëngu si benn affaire bi teg na si bonne condition auto lay coach la entraîné. Hmm. amoo benn problème àdduna macha allah amoo benn problème mu lii baax na ko jox la nekk si bonne condition. ok donc lépp lu laaj tey ci affaire sport ak lépp lu mu doon da waxtaan ak ñoom ci xel mu sell. ok bu defal nga def bàyyi mu bàyyi te loolu laaj ñaan yàlla tamit yàlla mosuñu la hmm. ñaan ñu yàgg fi lool. Hmm. Hmm. Euh, tànn euh, boole ak moom carrément ba mu jël la téye la parce que dafa mel ni sax su ma jumul dëkk nga sax kër Tapha Gueye ah. waaw loolu këram yàlla xam na ne xam nga am boo koy wax di wax si gars nañu jaaxaan dara la quoi. kooku suma papa la. mu ma sor ci ay waxam mënu ma débat ci ay waxam parce noonu la ma def man lu ko raw. faage waaw parce que yombul te day dund man diggante waajur ak doom damay dundee noonu lay dund ak man. Mm-hmm. tous les plans. Mm-hmm. kooku amoo fee man dama koy ñaanal mu yàgg fi rek. amiin yàlla may ko wér. may ko mm-hmm. njaboot di nuyu itam grand champion muy grand mbéy le doyen. Père Mbaye Gueye ñu di ko ñaanal tamit moo tamit wér wér baax a baax baax sinon di nuyu suma yaay jaraaf di ko ñaanal wér bu baax ak suma frère yëpp mhm. yàlla dafa leen jàmm quoi mhm. di wax Mohamed bag bi tamit mooy loolu Mohamed mhm. ah Mohamed mu ngi def bag ren waaw bag la def waaw ah macha allah am na solo loolu am na solo fusionné maanaam Fass ak Ndakaaru seen fusionnement maanaam ànd nekk benn écurie Amadou Kati Diop léegi moo leen yor di leen entraîné loolu no loo ci jëlee yow loo xam ne jàpp nga ne lii avantage la wala davantage loo ci gis. loolu yokkute la macha allah. Hmm. yokkute la maanaam mooy sotti si ak def si. Hmm. parce que suñu pap kat tey bu dee ba entraîné suñu pap Tapha Gueye. Hmm. entraîné ay champion entraîné ay roi des arènes. donc tam fierté la ñu ngi nekk ay xale yu ndaw. doon rêvé loolu. dëkk Medina moom tam mu dëkk Medina. xam nga yàlla dogal ko bu ñëw suñu ay loxo. loolu ci sant yàlla bu baax di ko ñaan moom tam mu yàgg fi lool. yéen bu oyof trop. Fass képp ku fay am combat ku fa génn yàlla dafa neex na. Hmm. waaw soo mënee neex na lan moo ci. ne parce que day am course yoo xam ne moom dañuy teg rigueur la ñuy liggéey. dem loo tax muy neex na parce que liggéey mu amul caaxaan. Hmm. yaa ngi nii saa muy taw. waaw fan la loolu fekk. si waaw waaw. ak njaboot gi. waaw nga nga bàyyi lépp toog waaw di liggéey. loolu moo tax. bëgg dara rek. waaw yéen noonu la demee rek. kon ku bëgg dara faaw nga def dara nga def dara. loolu am na solo macha allah mu mel ni tamit boo xoolee ñëw Kati Diop wala ànd bi ngeen ànd dafa mel ni am na lu mu jot a kii parce que combat yi ngeen jot a génn yëpp da ngeen ko gagné donte am na ci ñaar yoo xam ne mujj ngeen ko ñàkkaat par recours muy bu général ko li fay mujj na ko gagné waat par recours Calcio ak parisien tamit Calcio mujj nañ ko jox victoire par recours. Gris 2 gagné na ah, am na seen beneen xale bu bëre tamit gagné muy quatre combats quatre sorties yooyu ngeen jot a def ci géew bi yéen lañ jox victoire yi ñaar yee nag ñàkkaat ngeen ko par recours mm-hmm. yooyu yooyu dara loolu mm-hmm. affaire yi ndam li yàlla yokk mm-hmm. ndam li mu yokk bu baax a baax faas ca kaw ca kanam ci ay ndami kese ay recours rek di gauche à droite yooyu yëpp amul solo parce que laa ma toll noonu tey nga bëri plus de quarante cinq minutes mhm. làmb ji ñëpp kontaan mhm. nga joxe ay points tamit teg points yi yëpp ñu teg ko ci yoon mhm. làmb ji développé moo gën parce que mbër préparé ay combat ay millions dul jeex sa daan xëy suba war naan noonu def na recours dugg na fi waaw parce que li leen fay vraiment jar na ko parce que ñoo ñëw bëri dañoo xeex malgré jël amu fa mais joxe victoire par avertissement mais boo seetee am na ay chute yu fa am parce que ku def na quatre appui ñaareel xaw ma ñett yoon def na ko foofu. Hmm. n'est-ce pas. ah déet waaw non wax day waxtaan tey ñëpp ay mbër la ay ndaw lañ tey dañuy daanante suñu biir kenn mënul. mais lépp lépp maanaam CNG lépp dañu ko teg si yoon. déet CNG kay wàccut yoon pour. ma recours la recours la waa ji yóbbu ak ay vidéo mu mu mu xool. recours boo seetee ba si. Fass sax dañuy dugal recours yéen a fi dàq dugal recours nag yéen waa Fass. loolu ñun la xoolal boo seetee ba si ah. chute yi chute ah. yi. waaw chute CNG ah. nga war a daan mbër yow yow yoom yow mi ngi daan. waa yaa njëkk a laal suuf ko kële. non laal xam nga boo njëkkee laal sa sa départ ci li laal suuf. dama jox exemple lan mooy laal suuf ba tax ñu ñu la yaa daanu wala daanu góor. dama jox yow nga ne boo bu lii tegoo. waaw loolu jël la. exactement jël fees moom jël la. léegi man mooy bëri Babacar. waaw jàpp bara waaw dëbb ko plaqué. waaw balaa Babacar yegg ma sama lii laal la. waaw Babacar tëdd ma jug daa nga ah, parce que parce que yow li li règlement bi àtte moo la daan. Ah, sa fees moo laal. Ah, non xam nga fees moom bu tëddee. même bu waa ji jaaxaan te sa fees jiitu ci suuf yow da ngay ñàkk. bu waa ji recouré moom bu fi bu kasa. Eh, mbër yow itam bàyyi li ngay def yow tamit nag. mais doo ñàkk nag fa laay wax ak yow. fees fees nga wax de. bu fekkee da nga teg parce que mënoo toog teg sa fees ba pare di daan mbër. yow nga door ñëw Babacar jàng si bëri. <laughs> bëri règlement bi <laughs> xam nga règlement bi da nga tegaat si yoon. gars yi ñuy suivre wax leen ak kii waaye. règlement da nga tegaat si bi kay wàccul yoon. pour ban affaire affaire de recours c'est que ay xale lañ. su lamb dafa dépassé ay def ay recours du gauche à ay xale lamb li ko teg si yoon daf vaar jël am kaay leen bëriwaat. waaw boo nee VAR moom d'accord naa maanaam ñu avancé ci technologie bi nga xam ne bu bëree bi jaxasoo léegi ñu dem xool affaire yi vidéo yi bu leerul ñu leen kaay leen bëreewaat loolu d'accord a defee na niveau parce que niveau niveau yomb na lamb di nekk en direct sa caméra bi rek mu nga fi mu nga fi génnee recours parce que mbapat day am recours da ngay bëree mbër léegi léegi léegi coow ni kur kee di bëri fee ñu leen recours teg leen ngeen bëriwaat waaw loolu d'accord mais nañ ko def préparation combat moo gën a métti préparation arène. yéen bi ngeen yéen bi ngeen déggee ne général ñàkk na ngeen ko dundee. non man moom moom man moom méttiwu ma itam méttiwu ma moom def na li mu allah génn yaayam kontaan ay mbokkam kontaan ñëpp kontaan macha allah moom mu nekk jàmbaar jël combat bi préparé ko. Mhm. préparé préparation métti bëgg combat bi. Gris 2 daan Abdou Diouf boobu tamit nekkaat beneen victoire bu rëy ci Fass. loolu mbégte la ak kontaante loolu day si kanam Mm-hmm. incha allah mu mel ni tamit ci biir écurie Fass boo xoolee Serigne Ndiaye 2 général Gris 2 ñoom Pape Ndoye ak yeneen i xale mm-hmm. yoo xam ne mënu mel ni macha allah mel am na ni am na lu fa ne de. waaw waaye seen doom ay xale lañ. tey yoonu làmbam foo ko gis ginnaaw bi mu daanee Abdou Diouf. Gris hmm. fu mu nekk nii. Hmm. loolu du sama. liggéey yow mi mbokk léegi ngeen di contact nag. waaw bokkul wala contact gu ah, sa doom kay war nga xam ki mu war a mën a bëre. Giride fu mu nekk nii. Ah, sa Thiès ah. Sa Thiès. waaw. Sa yow loolu nga gis yow. waaw. dépassé wu ko. Sa Thiès. nu ko dépassé. damay laaj. Sa Thiès Moussa Ndoye la daan bëri gi démb de. pour yow loolu mooy combat bi daal. waaw Sa Thiès Gris 2 mooy combat bi. Mhm. xaar Reug Reug xaar guy gi. ko daal nga gis ay adversaire am yow. Ah. Franc loo wax ci moom. macha allah champion di ko nuyu baax di ko. digganteem ak Gris 2. non loolu du lamb nag. lu du lamb non Franc. ko teg. waaw am du lamb am du lamb. bul bul bul jaawale affaire bokkul. man jaawale wu ma dama laa laaj. non bu jaawale ba xam nga jaawale ba mooy maanaam benn un de un cachet bokkul. niveau yi bokkul dara bokkul. France waaw xam nga dama laaj mooy même wax. baax na bàcce kon waxal. waaw France champion la macha allah. champion la mbër la. dafa def ay preuve macha allah. Mhm. boo def lu leer naan teg ay preuve yu palpable yoo xam ne nii sax. Mhm. ku ko teg kenn mën ko bañ ci àdduna. Mhm. kenn mën ko bañ ci àdduna mais lépp nag si condition yu jaar yoon yu exact. yow maanaam boo may wax ay condition Franc daan. ba daan Tyson 2 di mbër moo xam ne ku naqaree daan la. ci làmb Franc daan ko bërki démb ci daan boo xam ne ñu am na ñoo xam ne sax dañ jaam ne dañ ko daf ko humilier ah nga ne ma Franc moomu maanaam ay niveau ak ay nangam. est-ce que waxu ko mbër boo xam ne da ngeen. est-ce que amu ngeen lu ngeen di ragal ci Franc. non dama moom defe naa ne xam nga Franc yow. ok athlète la dama laaj histoire. waaw dama laaj. waaw su ma laaj ci loolu laay tontu xaw ma nag xelu keneen ak xelu sama xel man. waaw ak loolu laa indi teg ko ma wax xel ma ak lu ma laaj ci sa xel moom mu nga waxee kay. exactement mais man tamit dafa dafa laal tontu rek. déet mais nag xam nga yaa fi wax léegi ne Sa mm. tudd ko tudd Gris kon naka ngay bañ ñu tudd Franc tudd Gris 2. mais parce que te Franc itam amagul défaite. waaw non nangu naa déggoo ma déggoo Franc macha allah champion la wala déggoo ma dafa indi ay dafa def ay ay ay ay ay. ay exploit ay preuve kenn mënu ko bañ ci làmb ji parce que champion la macha allah duñ ko xoo bañal li nga koy nangul képp ku ko bañal parce que doo nit mooy tamit da ngay teg lu raisonnable. Franc Gris 2 Gris 2 Sa a raisonnable Franc Gris 2. Hmm. nangoo non nangoo nangoo. déet man kay du man yow kay yaa ko wax. man kay loolu waaw Gris 2 Sa Thiès moo gën a raisonnable Franc ak Gris pour Serigne Ndiaye. pour Serigne Ndiaye. voilà moom am nga si droit. partage sama gënal ñaam bi kuñ ci tëj sa avocat daa baaxul. loolu la président Macky waxoon. yaa ngi dégg loolu moom yow la mais ba ba tey suma ma continuer làmb ji nga xëy a xëy ñu aj ko doon xaar làmb yu neex mois d'août bi ñu aj ko. ndax coronavirus loolu métti na dañ koy métti lu baax. Mhm. parce que lu mu di xew rek làmb yu neex yëpp mois d'août la woon. waaw te làmb yi dañoo la woon. waaw dafa tegle woon ah, donc gars yi moo nañ def beneen solution. Mhm. parce que làmb investissement la. bu metti promoteur mun na jox mbër cent millions. Mhm. génn dàqi dem uti sponsor. promoteur bi. mun na jox mbër cent millions. génn sponsor. teg joxe na xaalisam moom. waaw dem ci ci biti di wuti xaalis. sponsor voilà. te ku joxe combat cent millions. waaw nalaw nalaw gu toll nii doo ñàkk bañ am sponsor. de wóorut sax xalaatee su ko. exactement. Mhm. parce que ok dama wax cent millions. Mhm. xoolal kaw Balla Gaye 2. ak Bombardier. ak Bombardier. Siteu Papa Sow. Siteu Papa Sow. ñaata millions lañ lañ dépense ci combat yooyu. wallaay booy ñaar deux tafaatin. nga dégg booy da ngeen yërëm ay jaay ay fas. waaw kii dem waaw kii indi eh, non dafa métti. waaw dépense ay millions yu bëri. dafa métti c'est trop. Mhm. donc lu mu def si àdduna waroon na am benn comparaison dañ koy dawal mbër yi. Mhm. waaw mu teg lépp ci yoon bàyyi combat jàll état bi kat jënd combat jox ko télé. Mhm. télé donc en direct kenn ba ñëw esat. loolu moo gën a logique sax gars yi jël lamb di ko aj. di ko aj. c'est pas logique. aj gi daal yow d'accord ci. non d'accord ma si c'est que bu fekkoon combat dafa dafa des ay deux mois ay huit mois. d'accord naa mais combat yi des matul matul sax. un mois boo séddee. nañ bàyyi gars yi bëri bu jeexee jënd maaleykum salaam kon kon Serigne Ndiaye de dégg fi mu nekkoon ci làmb ji waaye daa mel ne nag ki ma ko waroon booleel ci plateau bi ñëw na dafa xaw a retard waaye xam naa taw bi yaa ngi dégg mooy Ibou Ndiaye Diofior Ibou Ndiaye Obali mu mel ni ñaar ñi moom gars yi seetaan defe naa bu ngeen gisee ñaari mbër yi moom di ngeen xam ne làmb fi daje comme ak ak Equivox ak Babacar nag lépp lu ñu leen di jox rek buñ sañoon làmb pire lay doon. waaw làmb piir li ñu naan bride bride bi làmb kese kese kese ngeen cay sentir du ngeen ca gis leneen loolu moo tax tey ñu préparé leen plateau bi ndax defe naa ne boo ne Serigne Ndiaye numéro 2 ah ñi naan ko Moussa Ndiafat ñi naan ko Coriace la ko indi mooy lambi mbappat Ibou Ndiaye tamit buñ ne Obali ñu ne Ibou Ndiaye Diofior doomi Diofior ak parcelle kon moom itam ma jox ko mu nuyoo comme moom mooy Dora yegsi ibu njaay maa ngi lay nuyu. di la waaw maa lay fay Babacar. Mhm. di nuyu waa équipe box yëpp. ndeysaan. xam nga di nuyu gars yi nekk yëpp. di mhm. nuyu toog. Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye. suma copain di suma gars xam nga. yëpp. di nuyu suma mbokk séeréer yi. Mhm. di nuyu waa Diofior. suma dëkk. waaw di nuyu ñëpp. waaw looy nuyoo sa mbokk séeréer yi. waaw foog nga séeréer mexe simnaa nun gidmaa nun yaakaaraa nun ku ref na ɓiinu séeréer mexe coodangu bay Hmm. macha allah mu mel ni taw bi moo la tax a retard. taw bi waaw. taw bi moo ma tax a retard xam nga rek tey moom temps bi dafa kii wax te Dakar moom xam nga su tawee rek. bu tawee moom day dëkk bi day daal di jaxasoo. waaw muy noonu la. léegi yow damay ñëw ak yow tout droit rek ci làmb ji. Hmm. Ibou Ndiaye Diofior Ibou Ndiaye Parcelles macha allah ngay xale boo xam ne yaa ngi ci làmb di ci wane sa bopp. Ibou Ndiaye defe naa bi mu duggee ci làmb tamit yàggul noonu de yaakaar naa. non ma duggee ci làmb yàggul. Hmm. première gala bi ma jëg maa ngi ko jëg mooy euh, première journée euh, drapeau suñu làmb ah. waaw waaw suñu làmb première làmb yu ñu njëkk a tëgg yu ñu njëkk a tëgg waaw tournoi boobu Adrien Senghor waaw waaw xam ñun ñëpp ay xale lañ ay boy lañ mhm. yaa yàgguñu si affaire suñu jom ak suñu fuga rek moo tax ñu ngeen yegsi ci niveau bi ñu yegsi ok waaw da nga kàddu gi nag léegi damay ñëw ak yow ci lutte avec frappe bi parce que mhm. balaa may ñëw ak yéen ci simple bi damay ñëw ci frappe bi lutte avec frappe ban année nga ci dugg waaw frappe bi sama première combat mooy bi Goro Sock di xamatuma année bi nag mais mooy bi Goro Sock di bëre kii Jokkel. Jokkel boobu nga njëkk a bëree. sama premier combat. koo njëkk a bëree boobu benn gars bu dëkk Mbour. xaw ma kii lañ koy wax nu ji xaw ma. amoon na mbër bu tudd waaw waaw Daara ji mbuur wax nga dëgg ñaata combat nga def arène. am na 4 combats arène bii moo nekkoon cinquième bi. ñaata victoire. Euh, dañ ma daan. Tafa dañ la daan. waaw Tafa Tafa Tafa 3. Tafa 3 moo la daan. Tafa 3 moo ma daan. Ah, sa deuxième combat arène deuxième combat arène. ok mu mel ni euh, tamit li ma laaj ci dinaa la ko laaj. waaw lutte avec frappe bi. gaa yaa ngi doon xaar combat yu neex surtout mois de bi. Mhm. yow mii defe naa li la dal dañ lay masawu. Mhm. ndax moom mi bokk na ci mbër yi nga xam ne ñoom ñoo waroon bëre dimanche bi nga xam ne ci la ñu tëbaskee ba pare dimanche bi topp ci tëbaski bi Jimbo ak waa Rente DKR tëggoon seen làmb mhm. nga waroon bëre ak Pape Yékini ngeen préparé wu ba ne jogg pour war a bëre si mhm. ñu leen annulé lañ combat bi mhm. Ibou Ndiaye nu mu dunde loolu ak loolu nak nga ciy dellusiwaate net li sénégalais yi wala sa soppe yi maanaam mbir moomu la dal di lu méttee méttee dal sama morom mbëri yi nga béq séqaloon journée boobu maanaam nooy net li waate bés boobu waaw bés boobu noonu vraiment bés bu métti ma bokk ak euh, samay mbokku mbër yeah, parce que ñun ñëpp tamit xam nga. Euh, mm-hmm. ku si nekk. Mm-hmm. Euh, da doon waaj combat. Mm-hmm. comprendre nga. te combat yi dafa taxoon ñu dem ba arrêté suñu compétition yi ñu doon def. concentré wu si combat bi. jël suñuy moyens yëpp def ko si. xam nga gars yi jàpp si combat bi yëpp tamit. Euh, def ko ci. ñuy waaj combat bi di xëy di entraîner. di di di di dugg fi ñu war a dugg ak suñuy mbokk. ba def gi ñu war a def yëpp. waaw dépenser gi ñu war a dépenser yëpp ba ñu ne teg ak bi. Mhm. waaw si bi ma nekkee ba yeewu daal si laa dégg ne combat bi amatul te fekk na ba si ndugg yi nga xamante ne sax moom nga nit yi war a añee sax waaw. si jour comme si dimanche ji. si dimanche bi. maanaam yow nduggi nañu añ bi. yëpp ndugg yeeg sa seen ndox yeeg tout. ngay nga war a takk sa ngem pour dem arène ba. waaw loolu rek a si desoon de. parce que moo la jëkk a loolu foo jëkk a dégg information bi. information bi Kalmu Ndour. Grand Bañik waaw Grand Bañik moo ma message ne ma mais mbër euh, envoyé ma message yi quoi ma wiir ko mais mhm. gëwuma ah da tooñ rek ma woo ko mhm. mu ne ma non affaire bi noo ah, ah, nga mhm. ah, demee ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ah de ma ne ko ah ma waaw ma ne ah metti na trop parce tamit xam bu ñu ko waxoon ay une semaine avant wala deux jours sax avant mais préparer sa combat ba foofu dépenser si sonn si daw si de gauche à droite waaw def si lépp goo xamante ne ni moom nga amoon. Mhm. affaire bi mujjee demee nii métti na trop. Mhm. mais nag xam nga euh, jaam ak pexe yàlla ak dox dogalam mhm. ñu mënuñu si dara. dëgg la macha allah muy lu mettee méttee méttee métti euh, grand Mbagnick même ci bis boobu la waroon bëree moom ak ki nga xam ne muy Eumeu Sène junior muy loo xam ne tey xam naa ne bi looluy am moom dépassé nga xaalis bu baree baree baree bare bari. Babacar bi ma si dépassé kay ñeme moo ko sax wax fii kii gàcce mbër ñun ni ñuy préparé du ay caaxaan de. Hmm. waaw surtout combat xam nga mbapat sax mun nga kii xam nga am yu sew yoo négligé. Hmm. waaw mais lutte avec bi. waaw mais lutte avec frappe bi moom du ay caaxaan. parce que ñëpp lay xaar. waaw parce que ñëpp a koy xaar kooku moom da ngay miiraa sa bopp rek bu dee borom jom nga. Hmm. waaw da ngay miiraa sa bopp xam nga da ngay jóg say mbokk jóg. say am di jàmm jóg waaw te xam rek combat bi. waaw séeréer dañ ma si doon xaar benn xaar boo xamante ni euh, waru. combat boo xamante ni dama si war a def erreur. am erreur daal dañ la ko ci interdit woon. non non combat boobu moom du mm-hmm. moom waaw ni ñu doon moom. bu mm-hmm. weer doon indi. parce que li tax nga man euh, dama la gis sa open press. nga def nga takk séeru rabal. waaw xaw ma rabal xaw ma kii yooyu séeru séeréer yooyu. yor sa béjjën. def open press bu doy waar biir Parcelles Assainies. mu mel ni mm-hmm. Ibou Ndiaye. ah pare woon na ci côté yëpp daal. waaw mais su ma su ma su ma su ma defee sëru a wala affaire yooyu noonu. c'est mhm. normal. Mhm. parce que xam rek nit ku nekk sa cosaan nga am quoi. Mhm. te doomu séeréer la waaw dama war a wone carrément man fi ma bokk. Mhm. yeah parce que nit ku nekk tamit xam nga fi nga fi nga fi fi nga fi nga sa waaso fi nga bokk rek ngay tiitaroo dëgg la waaw moo tax nag ma ñëw wone ko def fulla ak fayda xam nga mhm. def open press mhm. waaw euh, sama waa koñ taxaw ma waa parcelle taxaw ma xam nga dawkatu yi sama mbokk yi ñëpp ñëw taxaw xam nga su ma yaay mbayang mu ñëw jàpp si ñoom momoo gaa yi ñëw jàpp si daaw ñu def affaire yi ba mu nice man tamit xamoon naa li may war te xamoon naa fi ma jëm yee mais nag xam nga dem nañ ba dernier moment ñu ne ñu affaire yi amatul mu metti trop mhm. fekk dépense nga say dépense yëpp mhm. def nga nga war a def yëpp mhm. xam nga waaw jaay say bien dem nga bay jaay sax say bien pour def ko si combat bi yow jot nga jaay ay bien pour dugal ci combat bi hmm? combat bi combat kay gaañ hmm. waaw sa waay ñu mbër yu mag yi du ñuy gën a ngemb de ah barki arxuraanu karim mbër yi ñuy fay ay millions yu bari ay cent millions ñu ñëw ngemb ëpp ñu leen lu ñu leen dépensé ci ngemb moo yow ku nekk sa bopp rek nga xam mais Serigne Ndiaye mii nii champion bu toog nii. Hmm. kii xalaatu am combat di ngemboo ay 1 million ki 2 millions. kon yow li nga ngemboo mat na 10 millions boo ko toppee boo ko hmm, estimé. non matu wax dëgg yàlla waaye daal xam naa. ay la mais xam naa ne daal. waaw waaw su ma la wanoon sama téléphone ñi ma envoyé ay Orange Money ak ay Wave rek nga calculer ko fii. waaw. barki alxuraanu karim da ne non non gi mënu ne fu ne xam mujjee dem sax bay jaay say bien xam nga di jaay say nag. des fois nga. kon jot nga jaay ay nag ci combat bi. Mm, combat bi sa waay dama si def lépp sax moo tax promoteur bi après nee naa ko sa waay boo ngeen amaatee date foog nga am noo def ñun de. mbaaru de il faut noo def ak ñun de bi tamit nañ jàppale promoteur yi promoteur yi mënuñ jàppale. mais mënuñoo xëy nii sànq maa ngi leen dégg ñu wax waxu vaccin. waaw pour ñu mayaat ñu ñu bëri. affaire yooyu noonu sawaay mënuñu mbaa naru naru ngeen a vacciné woon non vaccin yi sax garaaw parce que naa ne man fi ñu jëm ñun mooy soo vacciné wu doo bëri doo bëri waaw daa mel ni man sàcc naa loolu de daa mel ni daal àllarba la ñu woote ba ñun nga si dara mënoo si dara nooy def def gi ñu bëgg rek nga def maanaam vacciné wu waaw mbaa dangaa ragal vaccin bi yow non wax dëgg yàlla moom su ma demee ba koy def tamit ñàkk pexe moo tax te bëri naa si morom parce que mbër mii xam naa tamit bu <laughs> demee bay vacciné <laughs> naa bu demee bay vacciné wu ñàkk pexe moo tax muy vacciné wu hmm. yee mais kenn waaw neexu nga nii rek ngay jug naan parce que wax dëgg yàlla yëguma sama yaram wu war a mun a tax ma vacciné wu quoi maa ngi entraîné xam nga maa ngi si jàmm quoi mais vaccin bi dañ na duy faj la luy wala boog loo xam ne la day défendre balaa feebar bay ñëw ci yaw wala bu ñëwee itam dootu la mën a rey daal moo tax ñuy vaccin ah waaw tamit mais mun nga ko jël tamit mu yee sa yaram bu doon. déet waay <laughs> loolu moom <laughs> kii xam nga ko de. waaw champion la mbër la. Ah, ngeen yéen ñaar ñii de. waaw xamante nañ bu baax. gimante te borom jaafat. borom jaafat <laughs> muy borom jaafat ngay borom. Diofior muy muy champion bu mag. vraiment di nit ku yaru di nit ku baax. di nuppal di nuyu tamit suñu papa Moustapha Guèye waaw waaw dégg nañ témoignage yi muy def si ñun mm-hmm. xam nga daf ko def ni doomam mm-hmm. def ma ni sama ni ni doomam tamit mm-hmm. xam nga di ñu ñaax waaw di ko ñaanal gudd fan ak wér di mu dem ba téye xam nga écurie Fass gaynde ga xale ñu bokk voilà ñu ñëpp ay ay ay ay ay ay ndaa ñu ñëpp ay ay góor yàgg gañ ku si nekk waaw da ngay da ngay da ut koo am rek yóbbu sa biir kër yee mais ñun mënante wuñu yee parce que làmb ñu ñun ñëpp tey dangay gis mbër moo xam te ne day jàpp Serigne Ndiaye di ko daan mhm. Ibou Ndiaye jàpp kooku di ko daan Ibou Ndiaye Serigne Ndiaye day jàpp Ibou Ndiaye di ko daan Ibou Ndiaye di jàpp ku mën Serigne Ndiaye maanaam maanaam ku daan Serigne Ndiaye ku daan ko waaw moo tax affaire yi munante wuñu waaw chaque jour rek suñu borom bu bu bu bu namee Serigne Ndiaye eh, daan daan Ibou Ndiaye day daan Ibou Ndiaye suñu borom bu namee Ibou Ndiaye daan Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye day juum daan ñaata yoon ngeen laale yéen ñaar yaa man a moom bëri nag bëri na ah yoon nga ah, bëri kii waaw rek ah. vraiment <laughs> champion la mbër la ah, ah. allah mais da ne mel ni bu ngeen toogee ni jàkkaaru da di rusante te bu ngeen nee ci làmb ji moom ku ne da fas sa kanam làmb ji ku ne di yëngu di yëngal non bopp si làmb ji gagne-pain la mhm. làmb ji liggéey la te si liggéey bi tey amoo ci xarit amoo ci àndandoo mhm. kii dañoo bokk benn place di entraîné man ak moom benn place di entraîné mhm. ma donc xaw nañ am ay tuuti lien mais si géew bi. waaw gis naa te seen i daje yu métti kay. bu ñu tegee 3 millions 5 mhm. bu ko jëlee. Mhm. day paas dem ba jos man jàdd. Mhm. waaw dugg joof yoor waaw dugg joof yoor. waaw man damay continuer dem njaafat yow itam kon ku am daal dangay yóbbu. say mbokk. te fooy utay million doo ko foyee. loolu am na loolu man bëgg naa ko ci affaire yi. maanaam respecté li ngay def non te yàqu dara. déedéet Serigne Ndiaye dañuy tase fi ñuy entraîné di bokk ndox di naan. Mm-hmm. papaam toog da leen di bokk butéel naa waaw du programme waaw du programme bi waaw sport la rek uh-huh. ñun duñu ay ennemi ay ay ay ay adversaire de benn temps la rek mm-hmm. bu jeexee rek jeex na mm-hmm. waaw bu jeexee rek après ñu ne si leneen parce que ñun ñëpp eh, moom xam na bu baax ne eh, ñun ci duñu caaxaane entraînement waaw ñun dañuy liggéey di entraîner ñame na entraînement gëm na boppam te moom tamit xam na ma li may daj ci montagne mais ku si nekk si ñun xam nga da ngay liggéey xale nga nekk si yoon waaw mais mbapat yi dañ siy nekk di bay suñu waar rek. di bay seen waar suñu borom di ñu suturaal rek. yaa ngi parcelle mbooloo defe naa. waaw maa ngi parcelle mbooloo waaw. ci ñoom Moussa muy nuyu maam Les ak Moussa Dioum. waaw sama coach. sa coach su maam Les. maa koy nuy baax di nuyu suma grand Moussa Dioum. Eh, démb rek këram ngaa yendu quoi. ndeysaan eh, parce que ñoo bokk. mu mel ni tamit euh, léegi nag damay dugg ak yéen ci mbapat yi parce que jot naa laal léegi yow. Euh, ren nga ne parce que bu ma xoolee bu ma defee calcul bi ne nañ cent sept gala laa jàpp cent cinquante sept gala moo am ren ci quatre mois xaalis bu bëri jot cee génn yaa ngi dégg loolu moom moom mooy li jot a daw mbër bi nga xam ne nag moo ne ca kaw moom mooy Doudou Sané bu joof yoor yaa ngi dégg moom moo ëpp lu mu jël parce que ne nañ jël na neuf gala neuf gala jël na ko yow su ma juumul nga jël yaa ngi dégg mm-hmm. franc tamit ci côté yooyu mm-hmm. Ibou Ndiaye dina ñëw moom wax li mu jël mm-hmm. loolu calcul boobu noo ko gisee ak ni Doudou Sané ñëwee nekk seen kaw non man je me dis que yi seen condition la ñuy joxe ne diw moo moo moo moo jiitu yàlla njëkk laaj loolu seen condition la ngay joxe condition yi mooy kiy gagné rek képp lu mu gagné xanaa ah déedéet ah Doudou Sané yëpp lu mu gagné di waaw macha allah moom lu mu gagné champion la ma koy nuyu bu baax au passage waaw tey tega dima teg 40 lamb hmm. teg 25 lamb trente lamb yu mag. Mhm. wala quinze lamb yu mag. Mhm. ma dugg loolu dix dix lamb yu mag yi. waaw am na lamb cinq cent mille am na lamb deux millions am trois millions. waaw gars yi cëkk cëkk coow cinq cent lamb mhm. nga dugg si góobe si douze. ma ma jël sept lamb yu mag. nu muy demee. waaw non xam nga xam nga. xam nga yow li ngay wax nii man xama man man man laaj laa féetewoo man nga may laaj kese mooy tontu amul sens dañuy ma nekk champion mu nekk champion waaw mu teg ay lamb yu mag kii reyante jël champion mag ma reyante jël ay lamb 500 ay lamb 1 million ñu yow maanaam Doudou Sané àndoo ci li nga da nga yaakaar day. non non bu fekkente ne ki ëpp li jël la macha allah mun na ko jël. fa lay waxee nag. waaw ma la wax dégg nga man ki ëpp trophée. ki ëpp trophée fa lay waxee. waaw man voilà mu jël si fa nga war a basé wu. Mm-hmm. yow fooy basé wu man fu ma basé wu mooy leen. waaw ëpp mise mag yu mu jël. ba pare ba pare ñu ne ñaar yow mi nga yaa ëpp trophée waaw fuñ fuñ la yemoon dama daan. yow da nga daan euh, Doudou Sané ren. waaw ñaata yoon. non daan naa ko daal champion la. Ah, non li nga ko daan wax day leer. non non xool xool lam non. Ah, xam nga amul sens amul ah, sens. kay na sens kat. di waxtaan waaw di waxtaan moo leen. waaw amul sens nga bëri mbër bi taxaw naa ko daan naa ko vingt daan ko quinze fois amul sens. parce que compétition bi xaajawul jeexagul. dafa amul sens sax parce que da ngay daa jàpp mbër bi compétition bi xaajawul jeexagul ñu ay xale lañ. da da ngay jiital mbër tey suba kooku jiital. Mhm. loolu noonu lañ nekkee. ok mais Doudou Sané da ngay ay tournant yëpp maam dem ci kawam donc ak carte di teg si yoon bëri na champion nag yooyu nag loo si mais donte donte daan nga ko de donte daan nga ko ci ay tournoi mais xam naa ne daal ci li ñu calcul moom mu ëppale ay gala mise mu jël moom moo bëgg loolu moom loolu la yàlla dogal d'accord avec toi voilà mais fekkee ci gala lañ ko teg moom kon moom mooy le mais fekkee loo ko teg kon day mais yow da nga jàpp ne képp li galaa yu yu mag yu ëpp niveau yow boog wala boog da nga jàpp ne yow galaa yi nga jël moo ëpp niveau yi mu jël waaw yow loolu nga jàpp loolu am kon da nga jàpp ne kon bu ñuy décerner ki ëpp le maanaam ki nga xam ne yi mu jël moo moom la ñu war a jox meilleur lutteur si yoon yow loolu nga jàpp te léewi defet say defet bariwul te de daan na la benn fii benn kese macha ren benn kese nga daanu ok bu lig Nicolas bi moom yaa ko jël sama kanam mhm. bari nga tamit su ma jumul am na bu amoon Fatick jël nga ko non drapeau yu mag yi moom yaakaar naa mën a franc boobu xaw ma est-ce que doon 5 millions xaw ma woon sax bi nga jëloon Fatick drapeau Matar Ba drapeau Matar Ba boobu am na tamit bu fa franc të jëloon bu jamaïcain ba waaw boobu nag 4 millions la 3 millions 4 4 4 bi foo ko jëlee Foundiougne Foundiougne ñu ne ren yaak franc boo xoolee yéenay ah machine machine machine bi nga xam ne daal machine buy génn xaalis la macha allah catuma leen gaa yee ko wax parce que boo xoolee ci li ngeen jot a participer ay 6 gala 7 lay toll yow yaa ngi ci ah 6 cent cinquante mille franc mu ngi ci 6 millions 800 mille yow nag da nga am 6 millions 150 mille plus 4 4 euh, looy wax ci loolu. waaw mais sant yàlla rek sant yàlla bu baax kenn mënul kenn. Mhm. ñëpp ay xale lañ dañuy compétir. Mhm. dañuy job ku si nekk sa wërsëg da nga koy jël mais lépp da teg si yoon. parce que le cadre meilleur dafa doy waar le meilleur dafa doy waar. waaw donc bu ñu leen le meilleur dafa war a fekk yow nga nga nekk le meilleur. nga nekk le meilleur. waaw dafa war a fekk yow nga nekk le meilleur. Mhm. Mhm. mais xale Joof yor boobu nag mën na làmb de. non dégg nga macha allah. Babs mhm, saf na xorom de. Babs waaw tey. tey ñun du ñu xadaafi ñun ñun amuñu amuñu xolu ku ñaan kenn. waaw ñu toog ñu toog ñu toog làmb lay dund. ñu bëre làmb lay dund. n'est-ce pas waaw. mun nañ bëri nag benn cinq nag ñu tàngal ko mu tàng mu mhm. jeexee jeex na mhm. tey su ma romoon tey léegi tey ku ne si ay jafe-jafe tey billaay wala dama lay taxaw ba mat mhm. sëkk parce que bu dara ay nawle la ñooy mayante xaalis yéenay mayante xaalis mais lépp nañ ko yoon teg ko si cadre lamb Obeuli ma ñëw ci yow moom li mu wax noo ko gisee ci le cas de Doudou Sané parce que jàpp na ne ki nga xam ne moo ëppale ay trophée d'accord waaye ki nga xam ne moo ëppale trophée yu mag yu mu jël bu ñu doon nominé moom la ñu war a nominé kon moom daa jàpp ne bu ñu nominé place su ba bu ñu nominé Doudou Sané si place am ça veut kon gars yi dañoo juum yow loolu noo ko gisee. no moom gis-gisam nga wax euh, vraiment ak xalaatam parce que nit ku nekk tamit xam sa gis-gis ak sa xalaat kenn mënu nga koo bañal. Mhm. comprendre mhm. mais yow question bi nga ko posé mooy maanaam euh, li nga gis ñu bind comme si journal comme maanaam tey ren. saison bi ki ëpp li mu jël si gars yi mooy Doudou Sané xam nga waaw neuf bind muy neuf neuf la jël de voilà léegi euh, Serigne Ndiaye moom côté bi muy waxee mooy côté xaalis. ak niveau gala yi nee na maanaam mise yu mag. waaw côté xaalis. voilà côté côté côté côté xaalis bi quoi. waaw maanaam ay 5 millions. xam nga rim jël xam nga rim jël. Mhm. ak euh, mais pour man. Mhm. bon ku si nekk daal Babacar li ma gëm mooy ku si nekk. Mhm. yaa ngi si sa carrière. di doxal. di doxal ku si nekk na nga nekk si li nga nekk rek nekk sa ruqu. parce que làmb dafa doy waar. waaw waaw làmb dafa doy waar nekk loo xamante ne nii tey. mun nga sa saison mun na neex tey nga teg ay quatre ramb trois yu mag jël ko xam nga commencé sax ay raaf. Mhm. mais déwén gars yi dañuy ne kii du. xanaa la gars yi dañuy ne kii xanaa du moo fi nekkoon moo fi nekkoon. moo fi nekkoon daaw di naaw mel ni Serigne Ndiaye mii nii waaw. am na ay saison yoo xamante nii si ginnaaw bu weesoo saison bi passé ak bu ren bi nii. Hmm. am na ay saison yoo xamante ni daan na métti si moom trop. Hmm. benn jour ñëw naa seetaan si Adrien Senghor xam naa ne jour boobu sax du ko fàtte. ñëw hmm. naa seetaan si Adrien Senghor mais bëre wu ma si woon quoi dama ñëwoon seetaan si nii rek. fekk ko mu toog si buntu si si si si buntu kii bi nu mu tudd si buntu Adrien Senghor bi. toog si benn bidon. ak ay bagages am. xam nga ma ñëw nuyu ko maa mi mbër naka mu naa ñëwoon bëre si fii. xam nga mais boo gisee booy yaa ngi fàtte fàttaku ne ma boo gisee booy bi ma daan. Mhm. non xam nga affaire yooyu benn raqu gaan gaan gaan sec. gaan sec waaw. waaw benn booy buy def poussière. mais mhm. làmb moo doy waar Babacar. Mhm. caméraman bii sax mun na dugg si làmb sax. ñëw jël jàpp mbër mu mag daan ko. daan ko parce que des fois nga yenn mbër ba si kaw sax yow nga daan des fois nga placer mbër ba yaakaar na yegg. <laughs> tëdd na nga far ko jiitu. waaw moo tax man. Ah. cadre lamb comme ñu ñëpp dañoo ne si carrière waaw mais ku si nekk rek hmm. xam nga wum maanaam wum gagné wala wum hmm. am rek hmm. ah nañ ko ko yéene xam nga fi may waxee te euh, ñaanoo ko man de yoruma xoogu ki ñaan benn ba Serigne Ndiaye 2 tey lépp luy wërsëkam si làmb moom rek ngay jëg munu muusa ka fexe ba jëgu du wërsëkam parce que ngemboowu fi gu nit ngembowu entraîné wu fi gu nit entraîné wu waaw comprendre nga fi may waxee te ëppante wuñu doole wax jee fi ne nii rek làmb nag dafa doy waat waaw ku nekk dañuy dagante ñu ñëpp suñu biir ku ne xam nga ne xam nga sa morom lu mu saf lu muy saf mm-hmm. yee mënumaa fekk tey Serigne Ndiaye fu mu taxaw ma dama ko fiy jege géegéeg pamti pamteeku Serigne Ndiaye tamit Serigne Ndiaye tamit mënu fekk Ibou Ndiaye taxaw mu ne da ko fiy jëga géegigéeg munta ne parce que sànq da nga wax wax bu am solo nga ne tey kii day daan kii kii suba daan kii Franc da koo daan arène ah non jarul ay tur yow non non non damay expliquer pour leeral li ngay wax yow nga ñëw ma nga daje ak Franc demi final nga sànq wax naa ko si kera euh, man mayoo ko jàmm taam moom moo lay wan ne yéen da ngeen di daarante waaw parce que tey damay gis loolu comme dëggal li ngay wax te moom suma ma jugul moom moom mujjë daan Franc fa nga xam ne nii euh, euh, wala boog moom balaa la balaa ngay daan Franc moom daan na Franc ñaaxar après Franc ñëwaat daanaat ko mooy li ma wax voilà mooy mooy mooy dafa doy waar ah. Mhm. comprendre nga fi may waxee. Mhm. moo tax ñun ñëpp. Mhm. cos comprendre nga Serigne Ndiaye gaynde ga champion nekk xaga bu ndaw nekk si yoon. am encadrement. xam nga ay ay ay kilifa wër ko. waaw comprendre nga. wi ne ci moom moo ne ci man moo ne ci keneen ak keneen ak keneen ak keneen nekk si Doudou Sané moomu. comprendre nga Doudou Sané xaga bu ndaw ga. waaw xale comprendre nga fi may waxee. ba pare nag xam nga macha allah am na fit am na jom ba pare am na ginnaaw. ñeewul sax Balla Gaye si ginnaaw waaw ginnaaw de yor na ko comprendre xam naa ne moom gis naa ko xaddaa fi waaw léegi nag nit ku mel noonu <laughs> làmb dafa doy waar ah, ah. waaw ku si nekk tey na nekk si li nga nekk rek parce que tey sa waay euh, Babacar hmm. euh, mbër ngi fii di mbër a ngi fii tey di jël cent mille francs hmm. ngeen dawa trois ans deux ans hmm. mu mu si yow noo xamante ne da ngay après da ngay mujjee toog rek naan pourtant man bi may. amoon na fii temps amoon na fii temps nga xam dafa doy na ko. waaw nañ doxal rek ñun ñëpp. mais mais nag laaj laaj laa koy boole. li nga wax d'accord naa mbër dina fi jël ren. waaw xaar xaar ma ñëw. waaw ñëwal. dama ne bu ñu koy wax. Mhm. waaw dañ koy wax mu valable mu ci mhm. mhm. li ma dal tey. mën na la douze ans suba. mën na ko dal moom mii suba ak kanam suba. voilà. xam mën dal waaw bu ñu ay lamb yu mag Hmm. lamb yu mag yu am valeur bu ñu ko tegee. Hmm. moom mu reyante jël lamb yu mag yëpp. Hmm. man ma jàpp ci làmb un million yi deux millions yi un million yi xam nga di ko jël. waaw ah. mënu ma nekk meilleur liggéey ci kaw kii. Mhm. yow daal foofu nga gisee. waaw non déggoo ma de Angleterre. ak Combeferre. am na différence de. am na différence. waaw ñu ngi Sénégal Europe. am na ah. différence bu ngand bu ci nekk. waaw fii ñun ñëpp dañuy nekk bay suñu waar. di dóor muy daanu Doudou Sané am jom ak ñeme li muy def moo tax mu génn outsider ren waaw nu mu nekkee xaram ndaw ñëpp noonu nekkee xaram ndaw kenn ma nga def deux ans yemam moom kay yéen a bokk génération teel bëri teela a jug poids lourd mooy am teel bëri teel a jug poids lourd mooy am loolu rek parce que xam nga affaire yi mais bu ñu ko tolloo hmm. bu bu toolokaat boobu nag li ñu wax la ne après suba. Mhm. moom bu ko dalee moom. Mhm. bu mu réaction dara wala moom daal moom daal kenn kenn bu mu réaction noonu. parce que du santé fu mu génn ren. kenn mhm. yaakaar pare macha allah. pare de xam la ma njëkk a fekk. waaw xam ñëw pare xam mooy lan. mooy da xool xam ne kii macha allah bëgg na li muy def gëm na li muy def. ni da ngay am jom. ci li ngay def. xam ne ay ay kilifa nekk sa ginnaaw. di la jàppale. ay kilifa nag bu ñu bàyyi lépp di jàppale dañ ciy teg sa bakkan ça veut pas ñuy bëri may am dam ci koom rek dama koy balaame non man je marche pas comme ça mais mbir teg si yoon cadre meilleur dafa xaw a doy waar le mot meilleur dañ a seetaat dañ ko war a seetaat segg ko bu baax a baax a baax a baax pourtant nag euh, est-ce que journal bi xam ne ñoom ñooy ah, a su suis mu jël ko. waaw te dafa mérité parce que mm-hmm. gaynde jàmbaar la. mais mm-hmm. damay wax di nga xamante ne maanaam pour suba ak gannaaw suba. Mm-hmm. pour gars cadre mairie ñu xool ni ñu koy doxee ak ñu baax a baax. parce li tax ma ne ñoom ki ñoom sunu làmb moom moo xayma li am ren. ak ni ngeen jëlee ak ni ngeen rawante ci ay jël mhm. mais maire bi nag ANPS bi nga xam ne moom mooy euh, association national presse euh, sportive bi moom mooy nominé bu ci yeggee ne kii mooy meilleur lutteur kii mooy meilleur lutteur ci wàllum simple Serigne Ndiaye nag ko comprendre voilà foofu moom yeggaguñ fa la wala Franc la wala Serigne Ndiaye wala Obali la dañoo bind gum comme moom moo ëppagum gum jël quoi loolu moom waaw waaw c'est dama lay dem suñu ni Doussane le roi du simple. Mm-hmm. ah le roi. waaw ah, mm-hmm. bu ñu ñëwee mu ëpp lu mu jël si drapeau. waaw ah. maanaam fa laay waxee maanaam bu ñu joxee la meilleur tamit munu munu ma fexe ba. yow daal da ngay teel a wax balaa ñu ko mais l'essentiel que yow li nga gëm wax nga ko. Mm-hmm. li nga gis d'accord naa mais léegi ma laaj leen leen. question bi yéen a ko bokk. nee ngeen mbër dina fi sax saxi laaf ren ëllëg déwén ñu ñëw ñu soqi ko. ma gis mbër moo xam ne sax na ay laafam ba nii mënu ngeen ci moom dara te itam yaakaar naa ne pour ngeen indi ko problème jafe na woon ci yéen ñi fi toog ñëpp muy rëg-rëg rëg-rëg tegal na fa ay at yoo xam ne nii pour ngeen indi ko problème jafe na de waaw dëgg nga xam nga euh, pour ngeen daan ko sax événement lay doon bu daanoo sax mu doon événement wax nga dëgg wax nga dëgg parce que champion bu mag a ngi noonu waaw muy Omar Kane rëg-rëg waaw di jàmbaar tamit mm-hmm. xam di koo xamante nii vraiment marqué marqué na empreinte am si. lamb Sénégal mhm. Sénégal sax laa lay wax. waaw waaw ah, def na lim si war a def lépp. Mhm. xam nga di jàmbaar di gaynde. waaw mhm. ah, vraiment euh, wax sa. mbaaxu waa ñëw sa mbaax dara. déedéet kooku jàmbaar la te vraiment xam nga euh, maanaam tey comme ni nga ko waxee rek. Hmm. demoon na ba toog moment yoo xamante ne nii. mënu ngeen koo daan kay. Euh, non du question de mënuñu ko daan. ah déet dama gis mu tëwoon kat tic. Babacar est ce que xam nga ne. Ah. mbër muy takk ngemb si lutte simple koo xamante ne man yéeguma sa kaw. yow daan nga rëg rëg damay laajte de gaa yi seetaan a bëgg a xam. ñoom Ibrahima Sarr ñi ñoom Mbaye Ndiaye. ñoo gaa yi seetaan ñoo gën a xam sax li ngay wax nii. mais nag yooyu yëpp indiwuñu wuñu fi quoi ay daan naa wala daan naa naa ñun ñëpp dañuy daan suñu biir <laughs> da ngeen di daanante nga te ku si nekk xam nga sa morom xam nga xam nga li ne si moom comprendre nga fii maanaam tey ku fi yàpp sa moroom rek waaw danga toog ak say gaayen ngeen di naan caayen rek ataaya ji neex rek ataaya neex rek ngay wax waaye xamante ngeen comprendre nga mais ñu ñëpp xamante nañ suñu biir macha allah comprendre nga kenn du si wane yaafuus ñàkk fayda wala xam nga euh, kii comme ni mu ko waxee rek mm. dafa am ay kilifa yoo xamante ne nii dañoo nekk suñu ginnaaw mm. di yëkkati seen alal di ko def si ñun di ñu inscrire si ay saag yu baax di yëkkati xaalis bu bari di ñu ko jox. ngeen di entraîner comprendre di ñu entraîner ba pare di ñu conseil tey ñooñu saay boo taqee ngemb man am naa si ñoo xamante ne nii comme sama gars yi nekk Dubaay. Hmm. ñooñu bu saison bi ubbee man dama leen di yàqal nelaw. muy nuyu sama benn waay Pape Diagne mu nga Dubaay. sama fans bi gars yi nekk Dubaay. nga hmm. xamante ne nii dañuy maanaam saay su may su ma su ma taqee ngemb. Hmm. ba gàmb ji di jeex quatre heures du matin wala cinq heures du matin du ñu nelaw. xam nga dañuy nekk si euh, siriñ bi xam nga di di di di concentré wu si si si si si si affaire bi ba muy jeex sama combat bii ni passé tamit gis nga. dañ cee sonn quoi dañ cee sonn dañoo cotiser ñoom ñëpp vingt mille vingt mille dajale xaalis boobu noonu yëpp yónnee si ma ko. xam nga ñooñu day bu ñu demee tey ba toog foofu noonu si ñoom tey amatoo droit takk ngemb di def nekk si biir géew di caaxaan xam nga di caaxaan wala di wane benn ñàkk fayda moo tax xam nga des fois bu ñu daanoo muy am nu muy demee muy mais yow dinaa la wax leen loo xam ne gars yi dañ la koy jëwee ah ne nañ Ibou Ndiaye saa bu daanoo ci tournoi mhm. maanaam dafa ñàkk concentration dëgg la su làmb ji neexee mhm. Ibou Ndiaye dootul yëg lu xew ba bi ngay bi bi la Zambala di daan mooy jour bi nga daanee franc mhm. te Zambala di la daan gars yi nañ maanaam concentration bi day manqué dangay dem ba animation bi ngay mujj a topp mhm. ba mu ëpp ndax tamit la ngay da ngay yënga làmb moom gars yëpp la ciy xaar ndax na ngay yëngalee làmba doy waaw dëgg nga xam nga lépp du dara mm-hmm. parce que comme gars yi ni ñu koy waxee rek programme concentration boobu noonu gars dañ ma koy wax bu bëri dama koy dégg. Hmm. xam nga ak excès de confiance. waaw ak yaa xam nga mais tamit loolu yëpp incha allahu rabi dinañ si. dinañ si dinañ si liggéey daal dinañ si liggéeyaat bu baax. Hmm. dinañ di gën a teey. Hmm. mais bu dee côté animation beeg yooyu man ku ma xam noonu la ma. làmb sax faaw ñu koy animé. waaw parce que tamit làmb ñu ñëw dugg si biir làmb mais nu ñu nekk si daara. xam nga fi may waxee ñëpp uh-huh. ñëw ne tekk. si làmb lañ nekk dañuy. faw mu yëngutu faaw mu yëngu. Serigne Ndiaye 2 bu dawee waaw général daw jaar waaw bu Njaay daw jaar nii Doudou daw jaar nii affaire mhm. nga jël ren. xam naa si dara daal mooy vraiment sant naa yàlla bu baax saison rek bi. Hmm. waaw sant am nga ci million daal. waaw sant naa bu baax a baax sant naa. sant nga waaw sant naa a saison bi daal neex na ci yow. waaw alhamdulilah. macha allah euh, dafa am beneen taxaw seetlu tamit bu ma def maanaam. dañu gis ne lit lit avec frappe bi mhm. yéen bëri semple da ngeen cee dugg di ko mhm. nangu maanaam mbëri simple yi mbëri frappe yi actuellement mhm. dañu am problème pour bëri ak yéen gaa yu bëri nga koy wax waaw gis nga VIP yi ngay dégg nii ñu naan ñoom ñooy VIP yi ngay dégg nii ñu naan ñoom ñooy VIP yi waaw des na tuuti te di nga ne Ibou Ndiaye musoon na ma ko wax des na tuuti fii ak ay at ci kanam waaw mbëru simple gi kese ngay gis ñu toog foofu noonu nekk ay VIP lan moo def différence boobu ak yéen. lan moo tax ngeen ngeen bëgg ñëw poñe lambi avec frappe ji. waaw mais comme ni ngeen poñe li simple bi. da ngeen leen ëpp compétition da ngeen leen ëpp doole wala lu xew. non ëpp ñu ngeen doole sax yàgg rek am doole. mais maanaam may waxee. moo ñu may woowu rek parce que chaque jour tamit ngay jàng tey su ma ñëwee Serigne Ndiaye daanee ma bi suba bu ñuy bëree man ak moom dinaa jéem a kii woowu. pour moytu ko su ma ñëwee tey daanee gi Serigne Ndiaye suba bu mm-hmm. demee ba toog dina ñëw micro bi waaw dina ñëw moytu googu. Mhm. affaire bi noonu kese ga. Mhm. xam nga affaire yi ga da ngay ñëw di jàng. Mhm. li nga mënut woon nga koy kii. ba pare di si am compétition di si gën a am beneen xeetu taxawaay boo xam te nii si xam nga tey munoo nekk sa koñ ne mbër nga rek. toog di xaar combat benn combat quatre mois wala at. voilà toog ci booy dal laa leen di wax. voilà toog noo xamante ne di entraîné dugg si saag dugg si yenn ay weñ ba foo romb ñu naan nga mbër champion. te billaahi wagaay boo duggoon si mbapat yi. waaw mbëru raw gàddu yi sax doo gën mun a daan. waaw te gis naa ci seen biir ay xale xale bi dëkk mbir bu nekkee parce que parce que xale la waaye ku sonal mag ñi la moom man pour man pour man yooyu amul sens waaw ay diw mbapat ak ay ko ah, waaye bu ngeen dee mbëri mbapat it fi mu ne neexu ngeen a daan waaw instant bi nii nii nii nii nii tey ah, affaire yi ku affaire yi di gën a dem rek muy gën a métti si gars yi ci yi gën a mu gën a métti si gars yi parce que dañuy xam nga dañuy bëreek ñoom waaw ñoom mënuñu si dara amul macha allah <laughs> Serigne Ndiaye loolu tamit dama la koy laaj maanaam lit lit simple lit bi hmm. yéen ñi nga xam ne yéen a ci ne di ci compétir ñu xam leen ci dafa mel ni lit avec Fra bi léegi da ngeen cee bëgg temps neexu ngeen cee daan hmm. liggéey liggéey ah, yaa ngi ñaq rek ama liggéey mooy lan waaw dañuy liggéey lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ak dem nga dem samedi ak dimanche li ngay liggéey lundi ak mardi mercredi ba boo ñëwee da nga yokk ok boo ci defee deux ans trois ans. Hmm. yàlla da lay suturaal di nga am ay niveau yu say grand frère yorul. ok kon loolu moo tax fi mu nekk nii ngeen ñëw yéeg ci kaw gaañ yéeg bu baax baax. sport amul na boobu. Hmm. sport waaw ay gàllaaj ak ay di gauche ak droite yëpp ay deuxième la. entraînement rek sport da ngay compétition. waa ñàkk sànni. ngay liggéey lu métti mooy tax après suba. lépp day yomb ñu naan ay galaaj la dugg fi génn fii. parce que da a jafe wutal combat sax dégg naa de. dégg naa pour ngeen am combat yéen problème combat yi day jafe. waaw xam nga tax muy jafe. Hmm. tey combat yi mbër benn na yàlla jégal. Hmm. fi ñuy teg làmb. Hmm. ak fi làmb yegg comme yàlla nga ni bokkul. comme naka làmb amul ruq sedd. ci luy baax la. amu ko làmb affaire góor la. affaire garmi la affaire góor yàlla la. affaire noble la. te booy jug sa koñ. wala jug sa kër. Mhm. benn nit dina topp da mhm. war a rey sa bopp rawatina ngay jug ay kilifa dina topp ok ay kilifa yoo xam ne ni muy mën la jur mhm. teg la si bonne condition bonne condition maanaam mooy nga am ay coach yu aay yu la entraîné teg la si bon état donc boo liggéeyul wala dafa ay performance a léegi sa adversaire sa xel ci kan la dem ci làmb actuellement pour nga war a mën a lekk avance am man fu mu nekk nii maa ngi toog rek Garga Mbossé Moussa Ndoye. Garga Mbossé man. Moussa a Serigne Ndiaye nag yow itam Garga Mbossé Serigne ñëw itam Garga. Garga sa adversaire la yow. non laaj di. xool gis mooy ñu toll nii. waaw da ngay jël jikko journaliste bi nga teg ko ne ngeen di jikko amateur xam nga nekk ay mbër. <laughs> man nag question laay parce que boo xoolee naa ma noonu yow léegi xam nga Serigne tamit wax ji dafa yàggul yaa fi wax léegi waaw ya waaw cinq minutes moo des sax la gars yi wax yaa fi wax léegi ci côté euh, finance ak xaalis ak yooyu gargam boo sax xam ne moo lëpp kase bëri mu bëreel su ma bekkee yoon Garga Mbossé su ma fekk xase ñetti waa wala ñeenti yoon. waaw bu ñu waajee bu ñu ñëwee. waaw moom xesam bu feeñ. lu koy lu koy nëbb. ci lépp tous le plans. yow léegi si sa combat ak Pape Yékini day continuer defe naa. day continuer waaw. Mhm. kon yow yaa ngi xaar. bu ñu jàppaatee dat. yéen ñaar de yéen ngi ñàkk rek. waaw mais ñun ay xagagañ te dañuy liggéey. sa waay entre <laughs> moom. waaw ah. amul caaxaan man defe naa ne sama vidéo boo gis. waaw vidéo Ibou Ndiaye boo gis rek. waaw fekk. si si ay entraînement nga ma gis kii moom xam na ma bu baax. xam kay comme ne na yéen a bokk fu ngeen di yëngu te moom xamante ngeen déggoo ma maanaam bu dee waagu entraînement. Mhm. Serigne Ndiaye mu ngi nii toog jàkkaaroog moom. xam na moom xam na bu baax. ma laaj la leen dañuy liggéey dañuy entraînement comme ay dof ay trois heures deux heures de demi daf ñuy fekk si dini. dem nañ ba wàccee dinu dinu dinu kii. Euh, golf dinu golf yi. dem nañ ba wàccee ko. ndax doole rek foofu din amatu fa actuellement ñu ngi teewoon pour chaque jour. moo taxit euh, ñaabu ndaw. waaw picc géejawaay la dëkk nga nekk parcelle lu leen lii yéen ñaar. waaw booy boobu suma ma booy la rek xam nga su ma su ma suma ma su ma su moo ñu boole man ak moom te hmm. du dara. Hmm. parce que din yooyu noonu ma wax. waaw fa doon ñëw di entraîner. Hmm. xam nga di ñëw su may ñëwee di entraîner mu gis mu mu nekk booy bu ndaw ñëw foofu noonu gis ma may entraîner mu xam ne. Serigne Ndiaye mi yàgg na ñoo gis foofu noonu mu xam ne mbër yi ñëw fii nii yëpp da ngay gis ñoom tamit dañuy ñëw daw ñaari tour dem ñibbi arrière ñetti tour xam nga dem ñibbi. waaw mais moom daf may gis may liggéey. di entraînement entraînement yu métti. mu ñëw topp sama ginnaaw. xam nga ma koy diriger. chaque heure entraînement noonu lañ def jëgante ay numéro mhm. chaque heure entraînement mu woo ma ngeen daje yaa ngi quitté ma ne ko waaw mhm. moom tamit mu quitté géejawaay ndeysaan ñu daje foofu noonu entraîné loolu rek moo ñu boole quoi Mbayang Loum yaa ko wax léegi sa open press passé moo ko way mhm. yàlla indi tey yàlla def wéradi ci yaramam rawatina tànkam boobu ñëpp a ngi ciy wax tey yéen waa làmb rawatina mbër yi defe naa ne ku ci ne war nga génn taxaw ñu jàppale ko te yàlla tax. parce que tamit koo xam ne la ñëpp ko soxla ci làmb rawatina yéen buru simple yi. waaw dafa waaw dafa métti trop dafa maa métti parce que moo hmm. ji dafa dafa dafa dafa doy waar. Hmm. da ngay gis mbër mu nekk si làmb ji ba xëy feebar. Hmm. ah du yoon sax muy xëy di génne ay ordonnance am teg gars yi di ko. ñu koy di ko ñaanal ñu koy film ba mu xëy dee. gars yi màbbee ku ñuy naan ay maye naa kër. ñii naan def. def naa lii def naa lii ah. maanaam ñii di indi ay nag. ñii di ñëw fekk yaayam mu toog ñu koy jox ay xaalis ko ban sens nga amati. ban njëriñ nit ki moment bi nga xamante ne moment boobu noonu la nekk parce que dund ak dee moo am. Hmm. wér ak wéradi moo am. Hmm. comprendre nga mais tey boo nekkee si benn affaire muy sport muy làmb ji ñu nekk boo si nekkee ba xëy nekk si ay situation feebar wala nga am problème. Hmm. mais gars yi nga xamante ne ñoo ŋànk affaire yi nañ jug. jàppale la Mbayang Ngum amul ku mu bëgg Serigne Ndiaye mii tey. Hmm. bu ñu tegoon fii woyu Mbayang léegi caméra yi tas. waaw ah, waaw léegi muy ñu jàpp nga génnee fii yëngal fii. Ah, waaw ma xajal leen tey imagine toi kooku noonu tey bu demee ba nekk situation yooyu Mbayang tey pour ministre bi. Matar Ba Matar Ba. Hmm. ah jël ko en charge loolu comme comme comme comme comme comme butéelu ndox yi ngeen ñu jox ñu naan yem. te tey wóor na ma ne tey ñaanu ma ko yàgg tey bu ñu newoon Mbayang euh, ñàkk na bakkanam ñoom ñoo fay jiitu ak seen i oto ñëw taxaw ñu leen di gis xam nga kon nañ jug xam nga jàppale mbay ak tànkam boobu noonu pour ñu faj ko. Mm. ñu yóbbu ko bu dee dañ koy yóbbu Europe ñu yóbbu ko. Mm. opéré ko faja ko tànkam mboobu noonu mu deegu si ñëw continuer parce que jigéen la nekk soutien de famille mm-hmm. xam nga am ñaari doom yaayam yaakaar ko mu nekk soutien de famille parce que mbayang mooy dimbali waa man xam naa ko bu baax dëgg la day woyi ñëw mu am bokk ko njabootam kon kooku nañ ko jàppale mm-hmm. xam nga autorité séeréer yu mag yi nga xam te ne suñu borom baaxal na ñu ne si biir dëkk bi mm-hmm. nañ ko jàppale te yàgg rek tax am na solo parce que nit ku nekk mbayang da ngay bégal. macha allah looy tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy di sant yàlla di jugu si yonent bi di sant sumay ñaari waajur. Mhm. xam nga di di di di di jéggalu Sénégal bi yëpp di mhm. nuyu ñëpp xam nga di wax ne émission bi ñu doon def. Mhm. bu dee am na si loo xamante ne nii euh, si biir wax bi jaaru yoon ñoo ngi siy tuub di si jéggalu. di nuyu suma doom ndey. xam nga suma waay euh, muy. man nii laa mel ak mbër yi moom mu ngi nii dañuy tase entraînement tooñante ba jàppante hmm. général tey bu ñu tase woon mun nañ toog waxtaan man aw ma programme yooyu te mais bu ñu tasee si biir géew dañuy rayante après mu jeex xam nga ma waxee waa di nuyu suma suma suma fans club bi Joof Yor Joof Yor dañuy sonn si man nuyu waa Joof Yor yëpp euh, gis nga yow da ngay gis sama statut gis nga vidéo gis nga vidéo kaar yi taxawoon si meeru Joof Yor bi waaw waaw di waaj di waaj pour ñëw si combat bi ñoo leen lam jo annulé Oh. di waaj ak yeneen particulier yi waroon taag ñëw mm-hmm. comprendre waa parcelle 1 ba 26 sama waa koñ mm-hmm. sama fans club bu joof bi nekk Dubaay mm-hmm. xam nga ñoom Kangu jàngar ñoom ministre ñoom Xaadim euh, ñoom grand Arfang sama grand Jogo Baas day sonn si man ñoom Mamadou Jon Mamadou Jon tamit xam nga sama combat bi passé dama toog ba Matar Senghor woo ne ma am na benn bitig bu nekk Diofior mu ne ma demal foofu noonu mu am lu ma jox bi ma fa demee waa bi ma joxe xaalis dama ko waaw gaa yi jàpp si xam nga di nuyu suma waa koñ di nuyu nag xam nga directeur bi may jàppale muy euh, euh, monsieur le maire goo fay goo fay xam nga borom réaction ñu ngi koy nuyu waaw monsieur le maire Go Faye maa ngi koy mm-hmm. sant bu baax di ko gërëm parce que daf mm-hmm. may jàppale day mm-hmm. sonn si man xam nga moo ko raqam euh, mef Mhm. du fay ak waa gërëm yëpp waa parce que maa ngi ni nuyu di leen sant di leen gërëm mhm. xam nga di leen nuyu Babacar vraiment xam nga nit ku baax nga te da ngay dundal làmb <laughs> waaw affaire coronavirus bi tamit di ah. ñaan suñu borom dindi ko fi ah, xam nga euh, affaire vaccin yi tamit nga xamante ne nii ñu ñu koy ñu ngi ñu koy koy bëggal <laughs> pikiir ah, na ma trop nag su ma lu mu lay métti dem leen vacciné wu rek yow itam dinañ vacciné rek mais xam nga bañ damay bañ ñu vacciné si troisième vague bi ñu def deux mois ñu ne waat quatrième vague déedéet dafa fa lay yem bu mu ah, vacciné moom mu jeex wóorul de ma xam la sama problème waaw yow la ma xam la sama problème boo pikiroo waaw day tax nga corona wala doo corona non boo boo xasee pikir ne dañ corona bi bu la laaloon tamit da ngay non du la rey de toute day laal saa ñu xam lan la waaw nañu bàyyi suñu laamu ñu bëri kaay ma faj la par force amul fenn ci àdduna amul fenn ci àdduna waaw yéen itam kon yéen nanu ngeen a dem pikiru ji kan di ngeen pikiru ji de man da wax dëgg yàlla bàyyi bëri ma gën a pikiru àllarba de gars yi woote nañ arène nationale nee nañ mercredi képp kuy la ku bokk ci làmb Aline Gueye maa ngi koy nuyu en passage tey daje na ndey ñoo ñoom ak waa CNC mercredi la de bu ngeen vac ku andiwul sa carnet de vaccination boo ba moom nga tekki sa ngeen Babacar dafa am nga xam te dafa métti lu métti Serigne Ndiaye nii macha allah yëgu si yaramam dara ah waaw man mii maa ngi sant yàlla sa waay damay mun naa daw dix kilomètres damay xëy rek ñaari kilo mburu aw ma benn problème su ma tëddee damay nelaw aw ma benn problème comprendre nga fi may ah, ma bëggee jël tamit ma ñëw toog ñu pikiir ma deux mois après may yëg sama yaram boo xamante ne nii saa daanu ma ko yëg sama yaram boo pikiroo doo yëg da ngay wér rek dem sa. waaw mais du du nii nii ñàkk du nii nii ma toog maa ngi wér. waaw mais lan mooy problème bi kaay ma kaay kaay ma piqûre force. mais dañ lay aar pour balaa prévenir. Oh, oh, ah, oh, mieux vaut que kii nu mu tuddati. waaw waaw du aar aar bi dañoo ne dañ raxasoo gel xaw ma. takk masque waaw. ñàkk ba pare nag distance bi. waaw ba pare ñëpp rek ñoo ngi aar suñu bopp Serigne Ndiaye aar ko. talaam amul dara amul. waaw talaam amul dara amul. non boo xam ne Seydou tàggatoo. non da nga suñu ñëw lu doy waar. waaw mooy. mooy suñu maman. mbayang lu mu waaw waaw waaw mbayang. ñu mhm. ñëpp ay athlète lañ. macha allah tey dafa ñaaw trop. Mhm. ñu xaar ba dara ne kët na joon mhm. ñëpp door see ñëw mhm. c'est pas normal maa mhm. ngi tey man wëñ jeex ma gis mbay di dox barke alxuraanu kenn nu ma oh. que jigéen la ñun ay ñëpp ay rakk jigéen yaay moo ñu ay matar baak ay ay CNG di mun a njiit nga yor njaboot di njiite da xool seetlu sa njaboot kus ne boo mënu faj nga def ay gestes réew mi am na moom fa la yoo xam ne pour porte boo fëgg hmm. au moins dina ubbil nga wax ak ñoom ci xel mu sell la hmm. ñu jàppale ko hmm. mais grande dame bu mel ni Mbaye lu mu toog ci ay télé dox bay jooy ci ay lan si ay soutien ay dafa ñaaw te muy bëggal réew mi dafa ñaaw trop ah da nga xool làmb ñaata jeunesse ñoo si nekk di tedd mbër am na fooy toll dem ba sa dana dem ba sa koñ yow yaa koy gérer yow mbër yaay gérer sa koñ te ñoom dañ ci joué bu rëy làmb ju Mbaye ngi nekkul Mm-hmm. yaa ndey faatu nekk fa mm-hmm. amul mm-hmm. amul dara lamb gi du safay du neex xool suñu papa du seeg yàkkat waaw wallaay la la ko war a fayee fu nekk nii yal na ko yàlla yërëm dafa ay dafa am ñoo xam ne si Sénégal ay ay ay icône lañu waaye bu nekk mag sax waruñ suñu sax fay fajow fii war am ay dañ leen a war a jël en am ay passeport diplomatique ñi leen di yóbbu ñuy faj fu ñu fu leen neex dugg fu leen neex génn wax nga dëgg am libéré provisoire fu leen neex dem mais saa ay feebar yoo xam ne ay détail mbéyum bu bu tukkoolee même pas un an bu ñëwee doo xàmmee. ay détails. ñu ko fiy téye ba ba am na réew yi kay naa bu ñu ko fa sax. léegi ñu ba ba nga ñëw ñun problème non nañ ñu sóor ñun quoi. macha allah yàlla xel dafal jàmm yaa booy nga dund lu bëree bëri yàlla sàmmale àll yi ñëpp. am na solo kontaan naa si yow yàlla na yàlla def jàmm di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo ngi doon ñoo ngi doon topp di si waa tàggatoo tàggatoo woo ba pare Serigne Ndiaye nag yow tamit nag non bu ngi soog a soog a saay waaw kon ñëw ci bu gaaw nga am ndam la ñuy bëgg waaw genre demee nii waaw xam mooy lan mhm. mooy nga ñu dëkk la caméra nga sant leen gërëm leen waaw balaa dara may gërëm samay coach ba pare say coach say coach su kay li nga leen bi ngay commencé loolu moom ñàkk la waaw acca dem parce que coach ñoo indi xaalis loolu lépp waaw na gaaw bu ma soxasul xaw ba ba mel ni Père Jo mhm. Père Ali ah. xam nga Père Moussa Fall waaw xam nga su ma coach Max Body Mhm. sama mbokk séeréer te doo gaax séeréer bul jaay xam ah. ma waay waaw dalal jàmm nga nga nga jéem foog nga séeréer mais xasim naanu sax waxal bul jaay lu bokkul <laughs> comme gars yi rek da ngay dóor rek. waaw dëgg dëgg. waaru yaa dàq dóor ñëpp. <laughs> Ah. problème bi ah. kii rek lu bokkul. lu bokkul xam bokkuma ren. Ah. ñu ay séeréer lañ suñu yaay ñu jaaxal dëkk. waaw dëgg ay un mois lañuy dem dëkk wala ay 15 jours ñëw. mais ñii dañuy juddoo jof yoor màggee jof yoor yaroo jof yoor. force ñu làkk. non bokkuñ c'est force obligatoire ngeen làkk. nit ki boo wax da ngay wax li xam ni ku ne tey moom jof yoor la représenté man kenn mooy Moussa maintenant Moussa Dakar. déet Moussa Ndiafa Moussa Ndiafa lañ ma wooyee. waaw d' accord parce que travail loolu. waaw liggéey daa tàggoo leer na. leer na di gërëm su may coach ak may entraîné. waaw su may sama papa Yves Diaw. Mhm. su ma dëkk Assou Ndiaye. Mhm. ak suma fans club fépp mu nekk maa ngi sant baax di waaw waaw waaw mu ngi sant meeru dëkkam man sama meeru dëkk Youssou Diom Youssou Diom waaw sama sama sama doom baay jooju sama mag waaw waaw Youssou Diom Youssou maa ngi koy <laughs> ah, toko Youssou maa ngi koy sant di ko gërëm mhm. jàpp na si combat bi mook doomam bi nekk France maam waagi mhm. muy suma mag jàpp nañ si te combat bi instant bii nii yàqu na nag dépensé naa sama xaalis bi yëpp. nañ ñëwaat autorité Diofior yi séeréer yi. nañ ñëwaat nañ jàppaat si affaire yi man man nag xam naa ne samay xam naa ne samay mbokk duñ ma seetaan <laughs> combat bi instant bi bu bu dat amaatee man gëm naa ne sama grand yeek sama mbokk yi ñoom jógo baas gars yi dinañ si taxawaat waa Dubaay gars yi dinañ si jàppaat mm. xam nga génnewaat xaalis bu bëri jox ma acca ak sa Ndiaye tàggoo léegi bu naa def <laughs> bi yoon wi libre na dama xam nga ko mel sama papa Ibi Diaw mhm. suma grand Cheikh Ba mhm. xam nga du nuyu ba maire maintenant Bamba Fall mhm. Seydou Gueye Siri Samb suma plan suma père Yves maa ngi baax suma carrière parce que gis naa taxaw bi depuis loor ba léegi muy jàpp te bàyyiwul ak suma benn grand boo xamante ni fu ma soxlaa oto de A a Z da ciy taxaw muy grand Madi suma cousin suma lépp maa ngi sant ba di ko gërëm di nuyu SAF Serigne Ndiaye de yëpp di nuyu suma paa may àndal bàyyi oto bi nag <laughs> yow si sa oto bi nga ko bàyyi woon. gañ na 4-4 waaw di nuyu suma paa bi. Baye mhm. Abdou Kabandoski. Mhm. suma gars yi may àndal yëpp. Mhm. di jàmm di ñaan yàlla saison bi ñu jógee nii. mbërib am jàmm. mbërib bi ñëw kon gars yi loolu moo fi. di di di sant monsieur le maire Go Faye. maa koy sant bu baax. xam nga borom réaction waaw non non man man maire laa ko jàppee parce que moo tax. waaw social bi muy def biir parcelle. waaw jeune parcelle yi ak maire yeeg ñëpp nañ jóg. xam nga dem lijjanti ci seen carte yi hmm. préparer élection mairie que social da siy jàpp Moussa Dioum waaw suñu grand Moussa Dioum ku baax ku baax ah. macha allah Moussa gis ngeen plateau bi rafet na hmm. naagis na neex na waxtaan bi am na solo li ko waral mooy ñaari champion la ñu indi ñoo xam ne askanu làmb xam nañ leen moo tax gars yëpp ngi nuyoo di ziar kon gars yi yéen ñëpp mënuma jaar ci tur ñëpp mais yéen ñi fi commenté yëpp wala ngeen zeme wala ngeen def lépp maa ngi kontaan ci ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm mais man tamit di nuyu sama maire dëkk comme ñoom nuyu nañu seen ay maire commune ma nuyu sama maire commune ca Bawal commune de Ndondol maître Pape Sène maa bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm di nuyu ñëpp ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy ay autorité te nekk foofu soxna ah? ñetti soxna yi ñaari soxna laa eh! muy nuyu sama ay soxna tamit di leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax di leen ah, xam nga di leen ñaanal jàmm xéewal njaboot gu barkeel di nuyu képp koo xam ne yaa ngi doon suivre Equivox TV waaw yéen ñaar ñëpp war a takk soxna yéen ñaar ñëpp war a góor day teel a yéen a ngi bëri di am xaalis booy fay am na soxna saison bi neex na soxna njaafar voilà takk saison bi neex na kon gaa yi noonu la demee woon tey ja technique bi caméra yi ñi ci nekkoon moom mooy xule borom ñooro ak ki nga xam ne ni moom mooy balde borom sali ak mbuur waaye ca technique ba nag hélas moom moo ko seere woon borom euh, fi nga xam ne nii moom moo di Passy muy nuy waa Passy yëpp mais di ci profito di jaale ki nga xam ne moom mooy suñu euh, DC fii ci Vox Arena muy Aline Badara Diouf di ko jaal gorom boobu nga xam ne moom moo génn àddina ca campement Ngexoox di way juru soxnaam di ñaan yàlla kooku yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana mais di jaale bépp doomu moo xam ne génn nga àddina di ñaan senegal yàlla na fi yàlla def jàmm feebar bi dem te itam nag wax nañ ko mercredi nañ daja arène ba ñàkku ji jàmm na ñooy yéen ngeen ñàkku <laughs>